wa a'uuzu bika rabbi an yahduruuni wa bibni mas'udin wa jaahibni salaam xinil bala wa dur aynin wa kalam muhammadun sayyidul kawnayni wa saxalayni wal fariqayni min urbin wa min ajam ma kaana muhammadun aba ahadin min rijaalikum walakin rasulullahi wa xaatiman nabiyina wa kaana allahu bi kulli shay'in aliman xoloomi wa xirfaani wa sa'i sakkiyatun liman bika lii xadat tawalif wa sarxa xanaa i bi max wi lay ani maxatuhu wa safa ayaati man li xëyri kafa shar'a mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci bi di sant Cheikh Ahmadou Bamba di ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi loolu te wér waaye di sàkku ñëpp rek kenn ku nekk mu def fukk ak benn ñu ñaanal Baye Matar mi dëkkoon ci kër gi yàlla yëpp koy leer taxaaru ko aljana ñaan bala ñoo tàmbali ñëpp def ko ndax bi nu fiy mujj di ñaanal sëñ Biloo keroog mi ngi fi di bëggee waxtaan week njàng mi kon dundam gépp ci loolu la ko defal maa ngi sàkku ñëpp ñaanal ko bala ñoo tàmbali mu mel ni fii jamono toll rekk war naa tax ñépp xam ne sëñ Tuubaa amul morom lu mel nii nu def waxuma la Dakar waaye boo génnee Jurbel gi kenn ñemewu ko fa muy dajaloo di sant Serigne Touba loolu moom Jurbel gi Serigne Touba am fukki at ak juróom amu fa tubaa dong la am kon xam lépp nu am te bañ koo fawee waaye borom guddi gii di Cheikh Mawar Fadal doonoon jàmbaar ci kër Serigne Touba feeñ jamono ci guddi gu réy nga xam ni julli moo ci wàcc maanaam julli ci guddi gi wàcc moo tax amul ku bokk ci sëriñ Touba koo xam ne Serigne tubaab mooy sa wajur ñu ni daara fawee julli juróom jumaa yu Touba ji sëriñ Fallou moo ko inauguré la 7 juin 1963 jiite na ko 261 ajjuma la ko Serigne Fallou jiite ñaar téeméeri ajjuma ak juróom benn fukk ak benn la ko jiite ñeenti ajjuma rek la ñëw te daa tawatan tawat jooju moo ko yóbbu aljana keroog sëñ bu sa ilimaan a jiite ginnaawam nag Seydou Khadir ko jiite 1247 ajjuma kon seen bàyyi ca lam leen tegoon ca la nekkoon moo tax keroog bi ñu koy denc fii moom sañ Tubaa ci jumaa ji bi ñu tegee ba gas ba pare dañu ne allahu akbar fajar jot sëñ Mbàkke bu soog borom daaru mut daal ni teg leen ko bañ julli ba lépp dara ko àggale ndax moom da lu daan def bu julli jotee da koy bàyyi loolu yaakaar naa li ko am ci nit ku génn àdduna bariwut moo tax kooku moo meññ sëñ Fallu yaay ja ma nga dëkk aafe soxna bu sa soxna mati ñang Abdu Aram ñang ca aafe Jolof soxna mati ñang mook alaaji ñang bokk ndey ak baay alaaji ñang moo jur maam Abdu Aziz baax moo jur Sophie Niang bokk mu jur Maurice Dabakh moo tax sëñ Fall lu réew mii ñëpp ay mbokkam lañu ñu baax ñi moo tax mu doonoon koo xam ni ñëpp la mën a defal la sëñ musaa ko waxoon ci wayoon nag dani dani sëñ Fall di la tëkkaleeg sëriñ si mi ngi mel ni nga jël mbaam mi ngonk di ko tëkkaleeg fasinaari góor alil fadili mislun fala taxiso ximaaran bi jawaadin fasa raiso mu mënoon a way araab lool nag nee na jooy te sëñ Tuubaa farata laa ko def léeg-léeg gis ko xaw a xeebu ci jëmm waaye fu tuddee sëriñ Tuubaa wala xasaay day jooy bu ko yab mukk ci bu def moroom xamal ni ku gëm sëñ Tuubaa ngi noonu xasaay ku ciy jooy ku baax nga ak noo mën a mel nag moom sëñ Tuubaa nee na sëñ Fallu nee na jooy ci sëñ Tuubaa tax farata laa ko def saf ku dumoxi li xobbil xaddiimi fardan araahu ca man sëñ Fallu amatumay rangoñ lu tax mu ni sama rongoñ yépp sëñ Tuubaa laa ko jooyal te mbindeef ja sëñ Fallu jubóowuñu woon di la nett lii kéemtaan nag da ko wax ne ko taalal nag du ma taal day xaw a jaaxal nit ñi sëñ lu nee na yoonu murit sëñ Baara ci gën askanu Mbàkke loolu wax nee na ko nee askanu murit yaa ci gën gën cee lewet ëpp ci xam-xam ba pare gën cee tabe laa laa yu jaari ke fil may daan min ahadin fil xilmi wal xilmi aw fil judi wa nasabi waaye léegi comme sëñ Fallou nee na sëñ Bara gën a lewet ci askanu Mbàkke ki ni moo gën a tàng nag léegi koy gën a gëm ci ñoom ñaar kon mooy borom guddi gi borom gi gi nag ci comme ni moo garaw muy Cheikh Ahmadou Bamba sëñ Touba benn la ci àdduna ak àllaaxira gënu jëm fi may tàmbalee waxtaan wi mooy sëñ Touba ak yàlla du tey ca bu njëkk la woon dafa wax ni dalla neen la wa muhammadin loolu benn xàbb la mission la xàbb boobu xabu deuxième bi pour biir bi door a mat mooy wax xaadali Muhammad li samadi loolu résultat la. léegi nag résultat ak ak ak ak ak mission diggante bi mën naa yàgg lool nga nekk ci benn mission résultat door a am mais sëñ Tuubaa nee lépp lu ma bëgg ci àdduna yàlla daf koy taxañ mu doon senn saa loolu nag boo gëmee appel vidéo war a gën a war a mën a gëm ni war naa mën a am. parce que da toog fii jokkoo ku nekk Amérique nga jàkkaarlook moom mu wan li muy liggéey lépp ak li muy def yàllaa ko ko dàq. moo tax sëñ Tuubaa lépp lu ma bëgg yàlla daf ko taxañ ci seen sax mu jot ci yaa man jaxalta salawaati naami ani ki sulooki ya te loolu samay julli ci yonte bi rek moo tax ma am ko sallallahu alayhi wa sallam mission ba tàmbalee nag eh waaye ñu teewlu ngir yàlla bu sëñ Xaadim génnewoon fii di jàng kalaasu Sëriñ Fall ak ñu may jàmm dañuy aw loo xam ni yow booy wax du kenn du la dégg waaye man bu may wax ngeen di wax damay róobe de ñu déglu ngir jëmmi sëñ Tuubaa samay julli ci yonte bee ma ko may mission boobu nag yow foo xamante yàlla xam wax ji dafa yéeme mooy yàlla ma tegtal rasulullah tam daa war na wax ni maanaam rasulullah moo ma tegtal sama boroom ne dañuy yàlla moo ma tekkal yonent bi mu ñëw ci moom mu ni ma léegi nañ ànd dem fa sunu borom léegi foo xamante yàlla ba mu lay tegtal rasul la mu ni yàlla ba ma koy xam du tey yàlla moo jóg ci kàttanam ak nammeelam tegtal ma jëmmam dal la neel xudrata wal irada xala la si yafalu ma arada yàlla bi ñu lay tegtal jëmmam kan kana ko fekk mu ni maag yàlla képp ko fekk kenn fekkoo ko yàlla bi mu tuddee waaxit nga xam ne jëmmam ci kese la amul ku ko ñaareel nee na foofu la foofu laa déyanteeg moom naajaneel lahu bi waaxit naajaneel naajaneel waaxidu bi saati wa fil wasi wal fihli bi laa moo xaw yàlla woon ma def defam yi ak melom ya ne ma nii laa mel ak lii laa war a def booba kañ la mu ni booba dara xewagul naajee te nii xablu tanaajeen alim ca bu njëkkoon la ma yàlla xamale mboolem xeeti xam-xam yi ba mujj noo mujj def ak yàlla mu ni sama diggante yàlla li fi dox ku dul maag yàlla xamoo ko ku mën a doon nag anantani maa la yasaalu xajaba kashaftali maa an sawaya ajaba ku dul maag yàlla xamoo li xew waaw loola kañ la mu ni ba yàlla bindee addina addina nekk benn bul ci kanamu suñu borom yàlla lépp teew ci kanamam inna kulla shay'in xalaqnaahu bi xadarin wa maa amrunaa illaa waxidatun kalamin bil basar suratu xamar ne lépp teew sama kanam ma jàkkaarloog moom adduna deux cent vingt cinq réew la mais bi ko yàlla bindee benn bul la doon ci kanamam sëñ Tuubaa nee yàlla ne ma mi ngi nii ma wat wan ma addina ma jàkkaarloog moom araanie rahmanu sirra na ma adduna sépp moom mu doon benn bul fi kanamu sunu borom nee ma ne ko adduna lan moo ko tax a jóg mu ne ma nit ñoo koy dëkki ak yi nit ñi ginne ya koy dëkk mooy wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa li ya'buduni nit ak jinne ñoo ne ci àddina dinaa fi yóbbu axyaar yi axyaar yi mooy patron yi ndax yàlla bi muy présenté rasulullah yi patron yi ci alxuraan daf ko wax ni ko waskur xibaadana ibrahima wa isxaaqa wa yanxoba uli lay di wal absaar yi inna axlasnahum bi xaalisatin zikra daari wa innahum indana la min al mustafani la xiyari waskur ismaila wal yasa wa dal kifli wa kullu min muy patron ya ngi nii yàlla baat bi noonu la ko tudd ci alxuraan axyaar mooy tànneef ñoo fay a dem yow de naa la fa yebal ahmadu waaye dama yebal yeneen ci 124000 prophètes dañ dem mais 313 yi ñoom lay yónni ñooy mursal jox leen ay téere juróom laaj tànn def leen ulul asmi min ka wa min noohin wa ibrahima wa moussa wa insa na maryam waa xas naa min mi saaxan xalisan juróom yàggoo léegi nag yàlla ni ko bu yonent yi jeexee xaw samaan yi ñëw nañ ci àddina xut bi ñëw nañ fi wàllu yàlla yi ñëw nañ fi ku nekk ñëw na fi jëf léegi nag ñoom ñëpp nag lépp lu ñu yoroon léegi la tàmbalee ci yonent yàlla adama mu njëkk doon yonent moom la yàlla njëkk bind ci doomu adama la tàmbalee fi moom ba ci xëyrul xalxi ngeen gi mbindeef bu jàllee mboolem xut bu samaan yeeg mboolem ku baax ku mos ñëw ci àddina liñ ñoroon dinaa ko boole mi benn bul sa loxo laa koy teg sëñ Tuubaa nee na ñoom ñëpp liñ ñoroon mi ngi sama loxo léegi na xoolal baatu baatu baatu axyaar gi yàlla jëfandikoo ci alxuraan ji moom la wax wa kullu min al axyaar yi wa innahum indana la min sooy laxiyaar yi mu ni wali ya hëb wali la si tafaraxa baynal xiyaari karaman wal tafruxa moo moo tax man sëñ Tuubaa kenn mënumaa misaal diw ak sëñ Tuubaa yam amul moo tax koo ni yaay sëñ Tuubaa koo jay bu ko yëgee ak bu ko yëgut da koo jay parce que kooku amul ku mu nuróol amul ku mu nuróol ci àddina na ko yàlla bindoon guddul njoolul gàttul yaram wa xeereer tuñ ma jib ku mu waxal dalay dee du xaqataay du wax ca kaw du tàllal tànkam fu mu toogee penku lay jublu melo woowu amul ku ko yàlla jox te du xas te du jëw te ku mu siqal taraanga rek dalaa jariñ bàyyi la nga dem keroog ca ca Mbàkke Kajoor bi Seex Adama Gueye di gis Sëriñ Tuubaa di ko wax sama sëriñ nga booba yoonu murit taxawagul ndax sëñ Mor Sali moo nekkoon université bi di jàngal mag ñi ci Kajoor ñu bari di jóge Bawol di jàngi waaye day wax day woowe sëñ Tuubaa sama doomi sëriñ tabaski jot dong yëpp tabaski ji sëñ Tuubaa bàyyam yónni ko Ndar ci maam askamara ay téere mu ni ana ki may wax sama sama doomi sëriñ fu mu dëkk ñu ne ko mu ngi dëkk mbaabu gi moom Mbàkke Kajoor sorewul sëñ Tuubaa waaxu tànkam dem ba mbaabu di ko laajte am ko ne ko maa ko xam doom yi soxna ma ti ko di jaayee xam naa ko waaw mooma de ñu daal di dem mu nuyoog moom ni ko sama baay dama yéndoon ma bëgg ñu ànd moom sëñ Tuubaa ndeysaan mu ne ko sëñ Adama Gueye ne ko waaye yére yi nga sol dafa tilim kañ dem nga sumi ko sama yaay fóotal loo ko ma jox la sama yére sëñ Tuubaa ne ko xanaa kon ñu dem ca ginnaaw kër ga mu dem mu jox ko yéreem ba pare ni ko barkeeloo ko ñu ànd ci yoon wi sëñ Tuubaa ne ko man sax de sama bàyyi laa xamul lu ma ko def waaye am naa lu ma bëgg a taxaw loo xam ne bis bu yàlla sàkk yoon sala sala mu ñëw di ma ko wax muy yéen mu mu ne ko man de boo ko taxaw taxawalee boo ko taxawoo jox naa la sama bopp sama gën ne ko juróom benn at loolu moom ci sëñ Tuubaa rek laa ko gisee maanaam mag ñi ma àndal mag ko ba sëñ Tuubaa ku dul sëñ Ibrahima Mbàkke Kajoor ah doo sëñ doo doo sëñ Maam Mor Jaara baayam sax sama sëriñ la koy wax mooy ibnu say xii doomi sëriñam foo gis na wax moom lay wax mais ku du seeru Mbàkke Kajoor sëñ Tuubaa la lay sàllaloo Mor Jéeri lay wax ca juróom fukki at la ko magee Mbay Saar lay wax 40 ans la ko magee Mor Maane lay wax fukki at la ko magee sëñ Basiru mi maam sëñ Aliou Diouf Lambaay bi ko sëñ Tuubaa seexal xam mu ko wax te magee na ko juróomi at dañu ko Aliou Diouf sama doomi xool nga te moo ko mag kooku ndax bi mu taalifee tasawur si xaar dafa am ku ñëw ni maam Thierno sëñ bi da ndaw ñi la defal ab téere banu mu ne ko déedéet moom ñëpp ay gone lañ ci moom moo tax ma ko yóbbalum ndaw ñi wallaay moom ak ñëpp sëñ mu sëñ bay jaxate nee na ndaw rek laawoon ndaw lu ñu ropp ak mag ñu mag ñi fi mag wala bala nga cee xam dara ñu ndaw ñooy ne fi jàng xasaayit maanaam ak di waxtaane sëriñ bi waaye soog col day tax da ngay dugg ci oto sax ku la mag ne la kaay toog fii papa ji mooy sëñ Tuubaa mi ngeen ràpp ak moom a tax nee ku gàtt la woon ku nu jëmbal waaju sut ñi fi sut mu ni ma ca teg ma ci mbagg may wax ak ña ca kaw kooku sëñ Tuubaa boo ko boo ko gëmee yàlla xam na ni wala nga mën a liir tuuti arab doo xuloo ci mbedd mi ak di xeex ci moom da ngay xam ni sëñ Tuubaa ndekke ñi muy waxal nekkuñu fii pays yàlla yee ñoo ko ñoo ko waggar xam nga ni bis penc ni mettee ñëpp di daw di tiit yàlla wax ci alxuraan waxaanat li jonga li ayil xëyoom damay toroxlu seen cëlma yi ñëpp seen kanam di toroxlu ku nekk sa kanam di sens ndax laaj gi ma la war a laaj sëñ Tuubaa neen loolu duma fekk xoolal dafa jël verbe bi yàlla jëfandikoo waxanati lu joomu mu ni isa li rabbi xanati lu joomu fa li jinaan mi nu taw jiwu ma nga fekk ñu muy orienté aljana naa fii nga war a dëkke ngoruk sëñ Tuubaa nag dina dem di bàyyi ab talibe muy muy sooy te bis penc ba ku ne am na fa defet na koo xalaat am na fa defet